te leen jàmm ci li gën a fës ci yëglekaay yi ñu commencé ko vox populi mi des waat ci coowal suñu littoral bi nga xamante ni président de la république Bassirou Diomaye Diakhar Faye a lijjanti yemu ca ndax fi mu ni suspendre na bépp procédure boo xamante ni dafay joxe suuf rawatina ci biir réew mi surtout ca DGID moom président de la république sàkku nañu daal di joxe googu ñu joxe suuf si ndax am na ci yenn ci ay bërëb yoo xamante ni faaw ñu lijjanti ko surtout ci région bu Dakar Thiès ak Saint-Louis yéenekaay bi ne bëri na ay chantier yoo xamante ni ñoo ngi ci région yi coowal suuf dafa am moom président de la République comme que dafa ñëw fekk fi coowal suuf soosu bëgg nañ pour l'instant lu toll fukki zone ak juróom-ñaar ñu lijjanti seen coowal suuf ba noppi nag soog bàyyi ñuy continuer nag chantier yi te ci fukki zone ak juróom yooyu bokk na ci corniche ouest corniche est terme sud angaaru pèlerin yi nouvelle ville de Thiès chantier yi nekk ca Fokat Dagga Xolpa Njëbeen Ganjol Pointe Sarène pôle urbain de Diacksao Bambilor Déni Biram Ndaw sànce ya fa nekk yépp lañ suspendre pour l'instant bëgg a càmbaraat nag naka la ñu joxee woon suuf sa yéenekaay bi ne président Bassirou Diomaye Faye laa la wax fawul fawul fawlawul ci suufuk Sénégal gi nga xam ne bëri nay entreprise ki sànce yoo xamante ni tàmbali nañ ko ci yenn zone askan ba dañoo xeex ba sonn laa la wax ak entreprise yooyu ñu jaay doole askan ba jël suuf ci façon boo xamante ni jaarul yoon lii moo tax fi gën a bëri coow fi mu toll nii nañu liggéey ba ba noppi nag état bu Sénégal santaane nag bu ñu joxeeti pour l'instant benn suuf ba ñu lijjanti ñi ñu jox suuf ba noppi nag seen coowal suuf yi moom président Bassirou Diomaye Faye ne yi ñuy dégg ci biir ko lijjanti donte nag ay dossiers yu compliqué lay doon ndax bëri na ci ay bërëb yoo xamante ni conflit sax laa la wax dafa mujjee am yéenekaay bi ne fi mu toll nii askan bi am nañu ci kontaan de ndax am na ñoo xam ne dañ leen a jaay doole jël seen suuf waaye doxalin gi état bu Sénégal commencé jël dal na seen xel de dal na xam la ci biir yéenekaay bi ne ñun moom nangooguñu benn suuf pour l'instant état bu Sénégal daal lim ñu sant gum ñoo nga ca commencé enquête yi yéenekaay bi ne Ndakaaru Njaay moom coowal suuf sonn nañ ci dee nañ ci tàyyi nañ ci surtout nag aéroport bu yoof bi nga xamante ni lébu yi saa su nekk ñuy réclamer seen suuf ba ci bande filao yi nga xamante ne ni moo nekk ci yenn zone waaye nguur gi fi nekkul lijjanti sax defuñu leen ko ba tey it yéenekaay bi def taxaw seetlu ci accident yu métti yi nga xamante ni mu ngi gungee fi mu toll nii laa la wax nguuru président Bassirou Diomaye Faye gii ndax niki démb dong ca rond point bu EMG benn bus moo fa mujjee daanu ba ca bilan ba nag benn nit moo ci mujjee ñàkk bakkanam ñaar fukki nit ak ñett am ci ay blessure fukki nit nag nekk ci cas grave góoru xuma di transporteur di xam la ci biir kaay bi ne fekk chauffeur si bàyyiwuñ je m'en fous bu ñu xam sax laa la wax luy am ci kaw tali bi signalé na tamit ay yoon yoo xamante ni baaxul état yi nga xamante ni yenn ci ay oto ci la nekk joxoñ na ko ba ci visite technique yi nga xamante ni des fois duñ ko respecté moom góoru xuma ne il faut ñu càmbaraat ba xoolaat sax ñan la ñuy jox ay oto surtout ci seen wàllu habitude ndax accident yi nag mu ngi bëgg a loxo en tout cas li wéetóor moo moom accident yi am ëpp na oto bi la ñuy wax la jara laaj mooy naka ngay xamee ne sa oto dafa am problème ngay jël ay doomi aadama di dugal ci sa oto ba muy def accident yéenekaay bi di xamle ne bu accident amee daal ñu ne pneu oto yi la wala ñu ne tàngoor bi duy gi ñuy duy oto yi ba mu fees dell des fois sax ñu ne goudron yi la des fois ñu ne surcharge yi des fois ñu ne comportement chauffeur si moo du xulle moom di xam xamle ci biir yéenekaay bi ne majeure partie accident yi ñu constaté yépp ay pneu ko waral pneu yu bon yoo xamante ni moom la ñuy def ci oto yi bu dee Boubacar Coulibaly moom spécialiste la ci sécurité routière moom mu ngay joxoñ baaraamu tuuma assurance yi nga xam ne ñoo nekk ci Sénégal Sénégal te seen mission numéro un moo waroon nekk jël en charge nag victime yi nga xamante ni ñoom ñooy am accident Les Échos yéene ne accident démb bi nga xam ne moo am ci EMG benn nit ñàkk na ci bakkanam ñaar fukki nit ak ñett nag am ci ay blessure ñett nekk ci cas grave bi ne la waral accident ba nag chauffeur bi ci boppam moo mujjee perte contrôle bus bi daal di saaraan glissé daal di continuer dem ba ci suuf rond-point ba ëpp daal di xalangu ci suuf oto yépp laa la wax ñoo mujjee deñ yéenekaay bi ne en tout cas jamono ji ñu toll nii day suñu waxul ci coowal accident ñoo wax ci coowal coowal ndax fi mu toll nii nguur gi lu mu mën rek mu ngi koy def ci litige yi nga xamante ni mu ngi ci Sénégal yenn ci ay travaux yi nekk ca corniche ba fi mu toll nii président Bassirou Diomaye Faye mu jéem a koo bloqué boole koog nag ay mesures yoo xam ne sàkku na ci travaux yi nekk ca corniche est ak corniche ouest Géejawaay Malika Dagga Xolpa cees mbuur 4 Saint-Louis ba ca angaaru pèlerin yi nekk ci diwaanu Dakar yépp la sàkku nag chantier yi fa nekk ñu suspendre ko ñu càmbaragum coowal suuf la fa nekk benn par benn rek la ko ba noppi soog a bàyyi nag chantier yi continuer nguurug Sénégal gi sàkku tamit ci mesure yi mu jël ñu appliqué ko ca na mu gën a gaawee te bëgguñu kenn ku jàdd décision bi feek nguur gi jëlaatul décision pour ñu tàmbaliwaat liggéey yi nañu suspendre bépp liggéey bu nekk ci corniche bi ak yenn ci ay zones yoo xam ne ñoom ci région yi enquête yéen kay ne président Bassirou Diomaye Faye kay fi nii képp ko am sànc ci littoral bi de sa bopp ëbb na ndax na nga def ba am suuf si dana ko lijjanti waaye li jara laajte kay dëgg mooy lan moo tax service yi nekk ci état bu Sénégal gi duñu teel a informé nag décision yi nga xamante ne ni état bu Sénégal da koy arrêt travaux yi nekk ci corniche bi en bu na sukkandiku ci benn fonctionnaire moom jàpp na ne mbir yi sabotage la de ndax mënul comprendre décision yu ngandee nii ñu koy jël ba noppi soog cee communiqué benn architecte moom di xam ci biir yéenekaay bi ne décision bi moom kenn du ko xarab ñëpp ci d'accord waaye nag bu mu am deux poids deux mesures lépp luñ ciy def tamit nañ tëddee njaaxaanaay comme ça àq ak yelleef yi ñu mën ko respecté l'observateur ni suspendre nañ ko ba ñu lijjanti coowal suuf li am ci biir réew mi ba noppi yemuñ ci ndakaaru njaay sax waaye ba ci yenn ci ay raison sànce ya fa nekk te bari coow lool nguurug Sénégal jël na décision lëj bëj ko Kader Fanta Ngom moom di xamle ci biir yéenekaay bi ni nit ñuy joxe titre foncier ci Sénégal ci boppam mooy yomb faaw ñu lijjanti ko professeur Abdoulaye Dieye ci biir yéenekaay bi moom jàpp na ne li jaaduwul surtout ci cadre juridique bi lépp lañu war a lijjanti ci coowal suuf li am ci biir réew mi yéenekaay bi def reportage ci littoral bi ouvrier ya nga xamante ni ñoo fa doon liggéey naka lañu jàngatee décision décision état bu Sénégal bii en tout cas ci premier mai bii moom yéenekaay bi xamal nañu ne doléance yaa ngee commencé yegsi ci kanamu président de la république de fekk jamono jooju président Macky Sall moom boo moytul laa la wax ñu topp ko ci yoon ñu nar ko toppee na ko trahison yénn ci ay juriste fi mu toll nii laa la wax ci ay tànkam la ñu nekk lii quotidien li ñu war a lijjanti ci Sénégal gii kay mooy décision yi nga xamante ni ñoo ngi koy jël rawatina ci suñu littoral bi te yi jëleewuñ ko ci kenn ku dul nag Atepa avant communiqué bi di génn sax laa la wax jugee ko ci palais de la république Atepa moom génne na xibaar bi lii moo tax yéenekaay bi def ci taxaw seetlu tey laajte lan la Atepa di jouer actuellement lan lay daw bay daanu lan moo tax Atepa ci boppam moo joxe xibaaru arrêté nañu bépp travaux bu nekk ci littoral bi avant ñuy génne document bi firndeel li ni mel yéenekaay bi yemu ca ndaxte mu ngi laajte ne Atepa ma daan defendre laa la wax littoral bi tey bu amee benn taxawaay bi est-ce que jotul nag ñu laajte lan moo nekk ci ginnaaw lan moo ci nëbbatu wala boog dafa am intérêt ci coow lii nga xamante ni moo am ci littoral bi jege gi mu jege tamit gouvernement bu bees bi ban avantage la ci am wala boog dafay lijjanti nu mu amee ay marché ci nguurug Sénégal gii lii yëpp yéenekaay bi mu ngi xamal ni jot na nag ñu lijjanti Atepa mi ban rôle lay joué jamono ji ci wetu nguurug Sénégal direct news ne fekk na jamono jooju de président de la république moom moo nga jëm ca diwaanu Guinée Bissau fas yéene faa def journée bu lëmb yéenekaay bi dañu xamal ni président nag war na fa waxtaane wàllum sécurité wàllum culture suñu frontières yi coopération yi ñu séq yeneen i accord yoo xamante ni ñoo ngi koy séentu ci diggante ñaari dëkk yi ni ki tey ji nag ci talaata ji la yendu la tribune yéen kaay moom def taxaw seetlu ci accident yi nga xamante ni ci ñetti fan rek fukki nit ak juróom-ñeent ñàkk nañ seen bakkan laa la wax ci kaw tali bi yéenekaay bi ne en jot na ci nguurug Sénégal gii ñu jël ci ay mesures dina mu gën a gaawee ngir accident yi mën a wàññeeku ndax ci ñaari fan nag ñaari accident am na ci autoroute bi ba am ñu ci ñàkk seen bakkan suñu autorité yi nga xam ne la ñu dénk wàllum transport yenn solution lañ nar a indi yuy mën a arrêté nag accident yi ndax mesure moom yàgg nañ koo jël yan mesure yu bees lañ war a mën a jël yoo xam ne nii accident yu taqarnaasee dana wàññeeku la gën a bëri nag ci li waral accident yi yéenekaay bi xamal nañu ne weesuwul indiscipline ak dawal gu jaarul yoon goo xamante ni chauffeur si ñoo ngi koy def source amam dañu nettali réunion secrète boo xamante ni waa Pastef def nañ ko seen parti bii nag ñu doon jéemal lijjanti nomination yi ñu fas yéene def ci yenn ci ay responsable financement wu seen parti bi tabax bi ñu fas yéene tabax seen siège parti bii ci Ndakaaru Njaay waxtaanaale tamit naka la ñuy fexe ba am majorité ci assemblée nationale yéenekaay bi def ci révélation yu rëy tañuy xamal yi président Ousmane Sonko bëggul Bassirou Diomaye Faye sori ko de ndax ci réunion secrète bi proposé na ko mu nekk nag président d'honneur parti bii di Pastef yéenekaay bi yemu ca ndax mu ngi xamal ne président Ousmane Sonko wax na tamit ci nomination yéene ci ay poste de responsabilité moom président Ousmane Sonko di xam bi di xam le ne sàkk sàkkoon tamit ci responsable Pastef yi nga xam ne dañoo am cër ci biir gouvernement bi ñu dugal seen loxo ci tabax gi ñuy waaj a tabax nag seen siège parti bi kenn ku ci nekk dugal loxoom laa la wax ci chantier bii ñuy waaj a tàmbali tabax ab siège bu rëy rëy rëy ci Ndakaaru Njaay président Bassirou Diomaye Faye moom di xam ne ci biir yéenekaay bi ne en ñuy fexe ba parti bi am alal dugal seen loxo nag ci biir parti bi ñu jéem a lijjanti tamit responsabilité yi ñu bi nu yoo xamante ni ni le jour moom doy waar bu pa almande moo fa rey benn élève boo xam ne coow lu rëy la fa mujjee jur moom ancien militaire bii nag dafa dégg coow ndekete oto moo doon tàkk xale yee nekk ca quartier ba ñëw nag di fay bi moom pa almand nag jàpp na ñooñu ay sàcc lañu mu jël fetalam daal di tiire balu fetal ba daal di dal nag ci xale bu góor bii nga xam ne ci lycée ba la doon jàngee noonu la xale bu góor bi jaare ñàkk bakkanam niki démb nag la élèves ya nekk ca lycée ba def seen grève génne élèves ya nekk ca Sandiara yépp jubali nag kër pa almand lu ñu mën ci yàq rek yàq nañ ko fa pa almand nag moom ba ñu ko laajee def ne dafa jaawale mbir yi daa yaakaaroon na ay sàcc moo ñëw këram mais mësutoon a xam ne otoom daf doon tàkk ba gars yi bëgg koo sauver maanaam daal dafa juum tiire balu fetal nag xale bu guur bii ba mu ñàkk bakkanam <laughs> yàlla bëri na sutura yàlla baax na mbokk kii continué leen di nekk ka bàyyi xel seen seen YouTube bi di Mourchid TV te gën a bàyyi xel télévision bi ngir ñu gën a mën a mottali seen yaakaar ñu yendoog jàmm ba suba ak jàmm incha allah